Amada Pela Amdan la Laya diggante sëriñ tuuba ak borom Darou Mouhty def di lu sunu borom dogal. ànd ba dafa yàgg ci seen diggante sunu borom boole leen muy àndin wu dëggu dëggu woo xam ne jéggi na dayoo. ñaar la ñoo xam ne suñu borom daf leen a boole ci liggéey boo xam ne bi liggéey bu ko soob la nga xam ne danga mën a jàpp ne ñaari jëmm ñu bokk benn histoire nit mënta jëm ci liggéey dara lu ñëpp mën teg bët te amut ko ko jàppale faw am ko nañ sawet faw am ko nañ sawet li waykat boobu wax ne boobu sax kenn xamagul yoonu murit ndax amagul jébbalu sax boo xewagul daam rekk ak boroom koso kon mooy koo xam ne kenn lenn kenn niwu ci lépp sëñ bee moom Thierno loolu it moo tax yëmaliwut Sëriñ Tuba ak dara mësu ko booleeg dara nga ne li saaxir ya bokk ak ba moom moom maam Thierno Birahim ci wàllu maam moo tax mu attan yan ba ñoom maam Maara mi nga xam ne ku ne bëggoon ngaa askanu ci moom dañu caa tibbati ba doyle ca. diggante la boo xam ni ak cofeel moo ko lal borom darul moxti dafa seeyal ak dundam ci dundu serigne Touba dafa jël léppam dugal ko ci biir serigne Touba yalla ko jagleel ci azal mok bamba, ñu bokk seen maam ci xadim fop yen ba nga ne di sahir ya bokk ak bamba mom mom maam cheikh ibrahim ci walu maam motax mu atan yen ba ñoom maam maara mi nga xam ne kone ne bëggoon ngaa askanu ci moom dañu caa tibb tibb tibb ba doyle ca ci seen yaari wet yëpp muy wu góor wi ak wu jigéen wi woo ci topp dafay ñibbi ca maam maaram ndax maam maaram moo am maam Balla Isa mu am Serigne Mor Anta mu am ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ak borom waaye maam moo am Serigne Ahmadou Soxna Bousso Mbacké sëriñ ahmadu soxna Bousso Mbàkke moomu mooy wayjuru soxna Absa Mbàkke ak soxna astawaalo soxna astawaalo ak soxna Absa Mbàkke ñoo bokk seen way jur sëriñ ahmadu soxna Bousso Mbàkke soxna astawaalo am soxna jaara mu am ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba soxna Absa Mbàkke am soxna Faati Isi Jóob mu am borom daarul mooti gannaaw bokk ga leen yàlla boole ñu bokk ma aram ci histoire bi ñu nekkee benn euh, muy xuru Mbàkke wala Poroxaan fu ci ne mën naa nekk histoire day am tuuti ay wuute waaye teen bii nga xam ne moo moom la soxna si ëpp lu mu soxna jaara ci xuru Mbàkke la ne te teen boobu mooy bi mu duggoon waaye teewut am na teen bu nekk Poroxaan boo xam ne root na ca waaye Poroxaan soxna si yàggu fa waaye li mooy teen yooyu. bu ci ne mooy yiñ daa wax teeni kànka nga xam ne day na xare roote te bu ci ab goj masee tab bi ak baag bi danañ am jafe-jafe lool suba ba ngoon door ko mën a génne yàlla baaxee soxna si booba sëriñ bi bu doon ci zaahir dang naan ndaw la lool te mi ngi ci gannaaw soxna si mu ànd ak soxna Faati Isa ñu dem di rooti di ndox yàlla dogal yàlla nattu leen goj ba ak baag ba dugg ci teen bi ñam jafé jafé lol, té bobu ndox dafa jafé fi ñëk di jaxlé ak nuñu wara def sëriñ bi dal li fuddu ci gënaaw soxna si dal doon magum jëm tol li ñëpp mat sëkk dal li dal li fab loxom duggal ci biir téen bi bam ag ci ndox mi mu génne goj bi ak baag bi dal leen di jukkil ba seeni baagaan fess mu goj bi ak baag bi jox leen gone ci gannaaw soxna si botu daal ne nag na ngeen ma suturaal loolu yi nag bi ko soxna Faati Isa gisee la ne soxna jaara yoroo doom man nag bis nekk say bis nekk tey féete woon moom. Serigne Moussa ne caama sarfa jin la ñëw ci dunya ne leen sunuy nopp bi doole suñu fukki fan ak ci weeru gàmmu di alxames gay di nga di yëmmu. kelel la seex bamba mu mag ma faatu mamba lay sa faatu ak ma laatu bés bu gënee àddina daal di takku la bamba xam ni am na lam daal sakku bu fekkee lu wér la nii bis bi ñu xeex xeexu Paoskoto mu xeex bi nga xamee ni tafsir ma ba jaxu ba ci la xeex ak le gouverneur Pinet-Laprade ci la feeñ kon mu ngi feeñ fanweeri fan ci weeru novembre 1865 ndax seen wayjur serigne morante seli ci wéru juin 1865 la ko tafsir ma ba jaxu ba jëlé xuru mbacké yobbu ko fi nga xamanteni bi moy porohan eh, ci salum kon euh borom darul muhti wayjuram mu ngi ko tuddé ben waliyu tukuleur bu ñu wax cierno ibrahima kan euh serigne cierno ibrahima kan mok ak serigne mam morante seli ño bokkon doon jang ci sëriñ ahmadou bamba sall ci bamba càlleen moomu nga xamante ni ci zahir moom la ñu tuddee ku tedd ki xadim rasul cheikh ahmadou bamba yàlla suñu borom subhanahu wa taala kenn ku ne xam ne ne moo man lépp moo sañ lépp dara jaaxalu ko mooy borom kun fa yokkun waaye loolu kattanam googu sañ-sañ boobu ak nameelam googu ñu bari bari teewul wut na ay mbindeef teg leen ci wetam ñu di ko jàppale wut na ay malaayika wut na ay yonantu mun na al awliya ñu koy jàppale ci li mu bëgg bu ko neexoon loolu mën a bañ am bu ko neexoon loolu mën a bañ am bu ko neexoon malakal mu tudd am ku war a faatu rek sa bakkan dem te kenn du kenn kenn malaka du ko malaka du ko du ko jël si bu ko neexoon kenn ku nekk boo matee mesure rek xam li yàlla digle ak li yàlla li yàlla tere ko yoronte mën naa bañ am waaye bëgg wax nit ñi leen nit mënut a ñàkk nit moo tax ma def noonu kon ku baax ku ku ne ku ne. faw nga am kenn ku nekk ci sa wet koo xam ne la jàppale sëriñ bi mooy wër néeg bi di tari alxuraan di ko di ko di ko xaar di ko xaaru ba dégg mu jooy rek mu daal di fab gi xar permi jox leen ko ne nañ la njëkk ci gimiñam bis ba mu juddoo ba takku ser baatam ba cheikh bamba daw njëkkante ko baayam ba keroog la mamor antena cheikh bamba sa ñaan nga nangu na kilee yor yan ba xam naa ni booy rasulullahi mooy sama aliyu mba omar billahi su bamba doon moussa mu dem seeni biir ak yooyeli biir nuroo na. Ah, bu fekkante ñoom ñaar seen diggante yi am nañ nuroo ci wàll yu bari waaye am nañu woote ci wàll itam aussi ah, kenn ku ne xam ne ne Moussa bi muy dem dénk na njaboot gi ñeent fukki fan la fa def waaye bi mu dellu si fekk na lu bari soppi ko fekk ñu tabax yàlla di ko jàmm Moussa àgg na ci bi mu ñëwee dafa mer ba àll yi ko si jox joxoon daf ko sànni. daal di poñ rakk ji bu koy waaj a dóor waaw moom googu am na diggam borom daaru bi mu ñëwee maam maam suñu si waatee maam fekk na lépp lu mu dénkoon borom daaru nam ko bëggoon na la ko fekk lu ca mën a yokk yokk na ko ca lu ca defar lu ci mën a defar defar na ko lu ci mën a taar taaral na ko ca kon woote googu am na ci seen diggante bu fekkee am nañ ko côté bu ñu bokk itam am na côté bu ñu woote Moussa bi ñëwee mer na. ndax yu bari soppiku na ginnaawam mais suñu tubaab bi ñuy bëgg na ndax la mbaawoon dara soppiku ci. Haaruna ab yonent la magam mooy Seydina Muusa moom mag ya ci wam moo sàkku ci suñ borom yàlla def ko bu yonent yàlla defal ko ko nam ko bëggee. nee na keroog àlluwa jëm doon jànge lëfa taxaw ca kaw lu rëy di fàng te naa ko sooy amiru mooy wasiiru sooy xut bu mooy xawsu te moo lay sóoru fekkoon na bàmbay jàng saru xasas ba ca fa arsilhu mahi la ko gisee. yonent bi alayhi salaatu salaam Muhammad alayhi salaatu salaam daana tëdd ba guddi muy ñaan su borom subhaanahu wa taala naan ko Omar na ko tabb ci diine lislaam na xam ne position boo xam ne bu tabbee ci lislaam dana ko dana ko def waaw sëñ Tuubaa noonu la mel doon wut góor yàlla boo xam ne day taxaw ci wetam di ko jàppale ci liggéeyam. kero bi maam Cerno gën a àdduna la ko wéjurum wax ne ko li nga doon ñaan yàlla na la ko kii Cerno Ibrahima yi mooy mooy moo la moo la jàppale. kon borom Daaru Muxti feeñ na bi mu feeñee rek way juróom def koo dal di jël jébbal ko sëriñ Touba sëriñ Touba ko yar moo ko jàngal li nekk ci moom lépp itam euh, moo ko ci def. moo ko dalal ci loxol boppam moo ko jàngal alxuraan bu mokkal moo ko tërbiyaal boppam yar ko lu ñuy def dongab daara def nag ko wet gu ne wëlbati gu ko ci nattoo na ko nu ne ba xool ko ba mu doy ko budul ko jiital ci kanam. Euh, Modou Ndiaye Racide wax na ni euh, jële na ci waajuram mu wax ni sëriñ Touba téere boo xamante ni téereb xam-xam la bu mu doon jàngal borom Daarul Muxti bu ko ci jàngalee benn bunt daf koy wax ni ko li ci des mbokk baaxe ko mbokkam nee na borom Daarul Muxti téere la maanaam bunt ya ko Serigne Touba baaxee sax moom lay gën a dégg ci bi nga xamante ni bii daf ko ko jangal kon borom darul muhti serigne touba daf ko sol xam-xam Bamba ko jangal alquran ak xam-xam jang ak liggey la bolon ba am ndam musula fanan all du genn dara ja day rafle tay yelwan ba xey am ja lolou moy ci ndawam lepp gis nga serigne touba lako andal musula mësula juyoog mom musula juum ba tab bi neeg mam fati non la serigne serigne Moussa wax manam neeg soxna fati se bi nekkon ci sin ci kër gi musula juum ba bi moo di ne bi fi seen jur bu baax wa nekkee noonu la ànd moom ginnaaw bi nga xamee ne jóge na fii tam noonu la ànd moom ba tax na bind wax ne moom sëriñ tuuba Touba. Ibrahima allati lam yufaariq nii mun si xarihi ilaa fi kabarihi Cheikh Ibrahim day musta taqalikoog moom ci ndaw ba ci mag. doon li ca ne Ibrahima allati lam yuxaalif nii fi si xarihi wala fi juyo ak mom itam kon lolu ab diggante mënu ko ler. leer lettre bobu seigne abdoulat Lahat mool na mi ngi ci majmua bi nga xam ne la seigne abdoulat genné wax ne borom darul mu'ti seigne touba wax ne borom mu'ti juyo wut ak man ci lenn ci ndawam ba ci magam amut len lo xamni ma ngi koy def muy def safan ba lepp lu may def rek nama koy defé non la koy defé lol nak moy li ëpp solo ci seen diggante ñoom ñaar ñaari wax yooyu euh, bu fekkoon nit ñi xam nañ ko daanaka dootu jar wax dara ci maam ci anok sëriñ tuba ndax nitu yàlla ko toll ni sëriñ tuba nga xam ne ñoom nit yàlla ñoo fi gën a naqaree déggool koo xam ne ca ngone nga ànd ak moom ba ngeen bokk màggat te mosu leen a werante mosu leen a juyoo mosu leen ko loolu kon dañuy xam ne foofu euh, ndimbalal yàlla fa nekk sëriñ tuba lettre yu bari gises na ko waaye xaludul ay man nag maam Thierno rek la ko sëñ Tuubaa wax. mooy sama përëgum day joor. nit ku ne buñ la doon laaj tey jii yow si jëmm ji ana lu la gën a jubu boo doon def dara wala ana lan ngay jëfandikoo boo doon def dara da naan sama loxol day joor bi loolu nag kenn kenn tuumaale ko sëñ bi da ko bind mu di wér mi ngi fi ba tey luñ bëgg-bëgg Thierno mënuñoo wax mënuñoo wax ba waxal ko lu sëñ bi waxut sëñ benn isa ataaka adu di kitaab yi yow Thierno mi sama për përgum përgum nday jor waxtoo gisee mbind mi defal lii ma la wax kon mooko ko mu nekk loo xam ne lii loolu itam lu yaatoo yaatu la mm, ñu cee déggee lu bari loolu itam mu bokk ci lii wane ne mm, téye na ko. te defe naa loolu sore na ci jëmmi doomu aadama. loolu mu wax ni mooy sama loxoom nday joor moom borom Daaru Muxti moo ko daan jëfal. ànd ba dafa yàgg ci seen diggante. min asasin li masasin taqabbala wa bi saraatihi kafaani subula kon e, Serigne Touba ak borom Daarul Muxti musuñoo teqali ko bi nga xamante ni bii seen wayjur ñibbi na àjjana keroog bi ñuy miraas Serigne Touba bu dafa wax ni. lu dul ceerno ak kaamil bi ñu fi bàyyi rek bàyyee naa ko njaboot gi ñaar yéen laa soxla ci li fi bàyyi kon yàgg naa féetewoo ceerno. ànd la goo xam ni dafa kawe. matériel dafa kawe aduna dafa kawe mbollem lu nit di sakku lu lu yalla ak bëgg gu tar mo nekkon ci ci borom dal moti geej gi nga xamne moy serigne Touba nga xamne ñepp dañ ci ñew wala dex di ci tanxasse lu ñu naan di ci tanxasse lu ñu fóot fóote ser, i ak lu ñu fóote seeni i xol ak lu ak lu seen yaram kenn mu sa ñew ci buntu dex gi te fekk ko fi maam ci ibrahim bi seen jur làqo moom sëriñ Touba borom Daaru Muxti la jël ànd ak moom dem Ndar ci góor yàlla bu ñu doon wax sëriñ askamara ngir jëli ci moom wérdu xaadir keroog borom Daaru muuti moo yenu junnim ngurdu sant Serigne Touba sëriñ bi war ci fas wi borom Daaru muuti yenu bagage yi sëriñ bi topp ci fas wi ba ñu dem Ndar yàgg nañu fa lool Serigne bi wérdu xaadir bi mu doon jëli ci Serigne askamara joxu ko ko. ba am genn guddi mu wo borom daaru moti ni ko bu suba dama bëgg nu xey jàll borom daaru moti ni ko lu la ci soob rek ba ñu xëyee le sëriñ askamara woolu sëriñ tuuba mu ñëw mu ni ko gis naa la bii kët ngay bëgg a jàll te yow yaa war a ràmm soodaan di sowu jant kon na nga toog fii fii soodaan kon na nga toog mbakke bawal dal di koy jox wérdu cheikh abdou khadir jilani jox ko jàkk wa malaan ma ak derub cheikh abdou khadir jilani der boobe mu ko joxoon moom la sëriñ Touba jullee woon ci géej gi der boobe sëriñ bi daf koo jox sëriñ mu Ka wax na ni mi ngi ñu dencaale borom daral mooti bi mu fekkee ku tedd ki xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba àjjana fii ci eh, bayti loolu mooy lan mooy aji toppe ji dafa toppe te deselu ca dara ki ñi topp itam mu téye ko téye goo xam ne gi téye gu leer ñëpp la téye gu leer ñëpp la ci kaw leeral na ko wax na ko bind ko ñu xam ne kii kat fi mu ko teg barab bu wóor la ci moom. ba sëñ bi am jotu man a jàngale la ko jàngal njàng mu rafet. riwaayaat yëpp la ko jàngal bindiloo ko kaamil yu bari jàngal ko xam-xam yëpp fànni xam-xam yëpp ba muy géej mu doon ko fees dell la xam-xam te du way ngir war sëñ bi gën a xam ñëpp sëñ bi te du wax ci sëñ bi ngir warmaal sëñ bi ëpp ñëpp sañ-sañ ci sëñ bi te mosu koo jëfe ëpp ñëpp mën-mën ci sëñ bi te mosu koo wone kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati. moo tax nga dégg sëñ Moussa Ka wax ñaari bayit yu am solo yoo xam ne yu ma dugg la dafa wax ne te lu mu lu mu am jox ko moom borom daal mu waxti te lu mu xam wax ko te lu mu amut yéene ko baa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Cerno Fati faj ko. Moussa mu ni sëriñ bi wax na ni yéem naa ko ngir lim xam ci man te waxu ko. ak li mu xam ci ay araf te jàng ko. xam na ci man loo xam ni kenn xamul ko am na ci man loo xam ni kenn amul ko yim naa ko ngir la mu xam man te waxu ak la mu xam ci ay araf te jàng ko yim naa ko ngir. xam-xam ba lu bare bare xam ne maay baarul sori yéem naa ko ngir lu ma ko jox ma jox ko yéem naa ko ngir lu ma saa man la koy jox maa ko gënal boppam te ku mu jox du la ñaax ci la sëñ bi daal di taxawal yoon wa maanaam ci la sëñ bi taxawal yoonu murit dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni njafal nga jàpp ceernu jiite daara ja Cheikh Ibra Fall jébbalu ànd ak maxraja kon bi sëriñ bi sosee yoonu murit Mbàkke Kajoor ci 1883 mbàkke kajoor la jëkk laa woo sàkket di sàkketa Seex Bamba bul ko bul ko sikk booba maa nee na maam Ceerno nga toll ci di door a mokkal alxuraan foofa la ko tàmbalee sancal Bawal borom daaru Muxti sancal ko fa mu bàyyi ko fa ñëw Daaru Salaam mu sancal ko ko dégg nga sëriñ Moussa Ka Bamba ca Dasasin feral sëriñ Masamba sëriñ bi am ñaari at Darussalam di wër pak bu tedd bi di Touba. amul kenn ku ñeme ne kéro bis ba may jébbalu si cer maam Cerno nekkul ak Serigne Touba amul amul maam Cerno it kéro ba mu gane àdduna fa fa fa fa yor yor mu gane àdduna fa paroxaan ba ci yor yor biñ ko biñ ko noppé jiss fi ci maam Thierno def na nangam joo xam ne ku bon bopp a koy def mussa kon nag damay yaakaar ne dex googu koo xam ne noonu nga demee ba noppi nekk fi noonu nga fi nekke euh, yaakaaruma ne euh, léegi sax jamono ji dafa am lu ci xew loo xam ne ndax gam-gam yi dafa bari waaye wax dëgg yàlla ku demee noonu nekk ci dex gu demee noonu it gam gam-gam ko kenn yàpp ko la yàpp ko la ba tax na maam Thierno ak sëriñ bi moom. Euh, seen day de leppi Serigne Touba Serigne Touba di leppam. sëñ Abdou Lahad it nettaliwaat ma ni Ceerno di gëm ak Serigne Touba dafa sori woon. bi da koo woo bis mu dikk muy waxtaan ak moom ñoom ñaar yàlla benn naar ne fa ne benn naarub Serigne na fa ne sëriñ bi wàññi fukki junni yu ngor jox naar bi ni ko boo dellu seewaatee déwén ci waxtu wi danaa la ko joxal ñu tàggatoo mu dem waxtu woowee ba mu daataa dellu si Serigne bi wàcc na. mu dellu si waat naar boobu dem daaru musti gii seet si ci Cerno Birahim ba mu dikkee alal ko teral ko teraanga ju jéggi dayoo ba muy yeewee ko mu wàññi fukki junni teg ko ci loxoom wax ko dara bàyyi ko mu dem naar ba dem ba ca déwén sa mu dellu si waataat ba mu dikkaatee daarul muxti seet Cerno mu dalal ko ci néeg ya gën a fegg lam ci roon nam ci roon doxee doxeetu ci leen mu yónnee ndaw ni ko nee ko damaa bëgg a yeewee ko mu ko ñëwal mu dikk mu ni ko man damaa jaaxle daaw ñëw naa fi man nga dalaloon di ma teral yëg fukki junni jox ma ko ren nga ren nga beccingal mo mën ko beccingaluma la def ndax musta ak man binde fekk ko ba serigne bi wax ak man nga tok rek la xamni li mu lay wax man la ko def lo daw ndigal suñ tuba la doon def lan ren nak sarax la sekk yow sarax nak lo man <laughs> loli cheikh abdullah xatama ko netti won ci digeenti cierno ibrahim ak serigne tuba nga xamni bok na ci limu doon wax ci li nga doon wax ko wax sax diko fatali ci cheikh banane cheikh day wéru borom da mu am cheikh joo jo xamne mi ngi nekkoon ci Baxos sëriñ bi dafa wax ne dafa doon ñaanal borom Darou Mouhty di ko sakkul ci boroomam loo xam ne dafa mujj mu xaw caa it ni mu ko waxee da caa sikk sakk ndax toog na lu yàgg te gisul la ca bokk ba mu ba saxabaan ja dellu ca déwén see di Jaxasin yàlla dogal borom Darou Mouhty fanaan si bi mu fanaan sëriñ bi nee na bi ma jullee suba ba noppi. lañ ma door a won nag ñu déy ma fa nuu diitu la wax maanaam ñu déy ma won ma ne ma li nga ko li nga ko doon ñaanal Ibrahima kat daaw co saxbaan saxbaani ren ji lañ ko nangu nga xam ne téye na ko ci wet yépp aar na ko ci wet yépp gis nga keroog bi ñu delsee pataar ci ñetti dërëm yooyu ñu doon wuti benn naar bu dëkk Mauritanie bokk ci tandaxi yoon yi wala bokk am ca bokk ci wàllu seen wàllu nijaay amoon téere bu mu lebal Sëñ Tuubaa Fatxul Aqfal sarxu laamiyatul afaal bi ñuy jàng fii Sëñ Tuubaa gis ko bëgg ko lépp ko ci naar bi naar bi ne ko dañuy ànd kon nu ànd wër kajoor ak bawal ak njàmbur sëñ Moussa Ka nettal ko sëñ Madu Lamin Jóob daga nettal na ko ci an-Nubzatul Mubaaraka lu gudd gudd la waaye téere boobu xam nga Sëñ Tuubaa daa ànd ak borom Daaru Muxti mi ak sëñ Masamba Jóob Saam ak naar ba ñu wër kajoor ak bawal ak ak ak njàmbur mënuñu fexe ba am ñetti dërëm yi bañ delsee gàttal gi rek mooy wa dekk bi dañ leen doon reetaan di wax naa ñoom ñi ngi fi jógee bu yàgg ba léegi waruñu fex ba am ñett dërëm ngir fay naar bi waaye gis nga la ci sa borom dal wax moti wax moom la bëgg a indi rek mooy dafa wax ne maam ceerno naa cheikh bamba nong ñuy reetaan naa duñu fay bor danaa ko yalwaan wax ju rëy ngi noonu kon loolu lépp day tegtal rek bëgg goo xam dafa sax ci borom darul moti euh, am na xisa boo xamante ni Euh, surtout sëriñ Mor Absalo moo ko nettali mu wax ni sëñ Modou Lo Dagana bi mu fekkee sëriñ Touba Mayomba ca euh, Gabon dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni xëy na kokki guy bisub talaata nam ca géej ga ba ñu naa xatmaata ba weer wa dellu see déwén ak bis ba la doog a seeru Bamba ngir pas-pas ba sëñ mët loo Dagana kere bi mu nuyoog sëriñ Touba ci Mayomba di jàmmanteek moom sëriñ Touba ni ko ana Cheikh jublu ci maam Cheikh Anta ba ma ko ba muy ñetti yoon ni ko ana Cheikh Anta sëñ Modou Lo na ni ko manga nga fa Serigne Touba ni ko day gërëm naa ko ko waxee loolu sëñ Modou Lo na di wax ci xelam ni waaw maam Thierno mi mu bàyyee njaboot gi ak yoon wa nag sëñ Touba ni mu ne ko Mbakke mu ne ko Thierno moom mu ngay xalaat day man may moom ci loo xamante ni sëñ Modou waxu ko da koy xalaat rek sëñ Touba ni ko moom day man may moom kon nga gis li ma waxoon ni ni ab mason di jël turel mu doon ab jëfandukaayam wala peel ba muy gasee loolu sëriñ Touba ni Ceerno moo doon sama loxol ndeyjoor da doon jumtukaayu borom da euh, borom Touba boo xamante ni bii moom la daan euh, jëfloo ndax ba mënagul a jëf moom euh, borom Daaru Muuti soxna Faat Isa Jóob moo daan jëfal sëriñ Touba ndax xam ngeen ni sëriñ bi lu xalaal rek lu dagan rek la bëgg di jëfandikoo soxna Faat Isa Jóob moo ko ko daan jëfal. loolu tax na bi sëriñ bi. nekk ak sëñ Mor Anta Sali te ñu bari umpale ko muy faral di wéet ci àll bi dina ci ay garab du jaxasoo nit ñi ci lay waxee xasidaam googu naan safi safihun li sarfi anhuma basar yi ñu bari nee nañ ab dof la waaye bu fekkee xemmem sunu si yenent bi ak wéet ak ñeemu tasawufoo ne yi loolu lañ ma jàppee ab dof loolu dof googu sant naa ci lool te ñaan bu jëm kanam noonu ñu ko jàppee woon nga xam ne wuti naa nit ñi ay gis-gis wuti nit ñi ay bëgg-bëgg ñu jàppee ko loolu tax na ñu bari amuñu won ci mom soxla waye soxna su tedd soosu moko da fekk foofee ci ker goga fam da tok leg leg mu ñew nuyo señ bi fay ko mu exi mu ne ko lu doon say tank mu ne ko dama leen andil woggu wii rek mu ne ko lo ci jiblu mu ne ko xana xamne boko soxla rek man ci xewlu ndax xadna ta daara ji dafa bari mbolo ta mëno jaxaso nit ñi ma bëgg bo soxlaate rek man ci jarignu lolou ngeen deggon serigne bi di wax ne ceerno de wogu ndayam wa rek la koy fay ci adina lu ngeen gis ci àdduna lu mu rëy rëy rus na maa fay nit dara ci àddina waaye woggu ndeyam rek lañ koy fay la ma ko liggéey ak la ma nar ci moom àllaaxira lay fañ xaju ci kon diggante Serigne Touba ak borom Daarul Muxti daal mooy Serigne Touba bu ma saana ñaan sunu sunu borom da koy may ba noppi doog ni ko ñaan ma kon sëriñ Touba sunu borom moo ko may borom Daarul mooti mooy modèle modèle bi Serigne Touba liggéey teg ko ci kanam murid yi ne leen kii ni mel laa bëgg ñëpp mel ni mboolem loo xam ne ab taalib bi war na ne mel dajale maam Cerno Ibrahima jëm jëmm joo xam ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi mi yàlla bind ne moo gën ci bindeef yëpp ganaaw yonent bi keneen koo teg buñ booleen bindeef yëpp ne Cerno bindeef yëpp ak sëriñ bi loo ci xam buñ day wax ne buñ leen boolee ñoom ñëpp bëgg gi ma bëgg sëñ bi ñi ñëpp nañ ñeen boole ci benn balance sëñ bi war leen ku dul yonent bi rek ceerno laa ne ku dul yonent bi sëñ bi gu gënal ñooña mindi fi jamono jëpp moo tax sëñ Tuubaa Coob moo ko seere lool xam nga mënoon naa nekk sax ay wax yoo xam ne dañ koy wax nii du dem waaye sëñ Tuubaa Coob moo ko bind ci loxoom ne ko ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa mooy yow yemoo ci bëgg ma rek waaye dañ dañ dañ laa faat ci bëgg ma maanaam bëgg sëñ Tuubaa bu doon paaka dañ la cee rend yow ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa Yeah! bi sëriñ bi di dugg ci àll bi di wër pàkk bi dafa bàyyi woon njaboot gi ak boroom daarul Muxti foofe ci daaru salaam dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni bi sëriñ bi di wër Touba am na fa fetto fa sexaw gu rëy ga luy bëgg a mat weer te gisul waa kër ga Ceerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite daara ja di jàngal doom ya loolaay lalub xalifatul xadimi cheikh Moustapha al Mbakki moo mat doom yi kon cheikh Moustapha al bi muy feeñ fekk na waajuram di dugg ci àllub Tuuba bii nga xam ni dem na ba euh, sori lool doon wër pàkk bi kon bi Cheikh Moustapha feeñee borom Daaru Muhti moo yónni ndaw mu dem ci àll bi di wër sëriñ Touba ba gis ko xamal ko ni ko kat gan wut na ko fi dégg nga mu ni noo ci yónni xonn ndooy ca yoor yoor moo ko yëgal Cheikh Bamba kooku lay góor bamba ni Cerno na nga ko wax boroom saam maa ngi ci xalwa may defar fileeg saam kon Cheikh Moustapha mu ngi fee ñetti fan ci weeru tamxarit ñi ngi ko jox aw turam fukki fan ciw tamxarit di yow ma Ashura sëñ Moussa Ka nee na bisub tuddam ba yow ma Ashura la bamba gis tuuba mu leer waraa li lay taxoon Cheikh Moustapha moom tuuba leeru mbirum juddoo ma feeñal Touba eh, moom borom Touba te am fa ñetti at 1891 Cheikh Mouhamadul Amin moom Serigne Touba feeñ Serigne Touba ni mag ñi li ngeen fi doon wut kët gan gi indil na leen ko kon mën naa leen a yeew wi ngeen dellu ba mu yeewee mag ña ko njëkkoon a topp ci la waxoon borom Darou Mouti ni ko mën ngaa ber sa kërug bopp nag di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ndax sant naa la sant goo xamante ni ngi xarab dootu ca topp ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkkee kër kër.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 sering touba yewé na ma batai tay bind na ko jox ma wax na ma ko ma dégg waaye bu ko rek ma ni ma te wàccoo kon duma ma wàcc sëriñ tuba pàkk bi di tuba juróom-ñaari at la ko sunu borom mayan mu dëkk ko fa moo ci koru 1895 mu dugg xalwa fi ci daru xuddoos sallallahu alaihi wasallam feñu ko mu waxante ak mom mu waxante ak mom lolou motax ba mu mu yebal borom daru muhti jolof mu dem sañ ci pak nga xamanteni mooy mbakki Bari foofee fa la borom daaru Muxti ak Serigne Touba nekk ba Serigne bi bind lettre jox ko ko ngir mu yóbbul ko ci gouverneur général ba ci le 10 août 1895 dëppoo woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bés bi nga xamante ni ci la Serigne bi génn bàyyee borom daaru Muxti njaboot gi ak taalibe yi ngir dem ci géej gi. nekkee ci diggante maanaam taxawaayu borom Daaru Muxti ci njabootu Serigne Touba gi itam euh, gis ngeen bi sëñ bi demee ci géej gi te tawat tàbbi ca la borom Daaru Muxti def waaye la war ci njàng ma itam Cheikh Moustapha mii taawu Serigne Touba dégg nga Serigne Moussa Ka mu wax ni maam Thierno Faté ko dalal baasina ba bàyyi ba delsee la ko def Yacine sëñ Modou Moustapha. bi muy bind ab kaamilam booba waajuram mu ngi Gabon Abdoulaye Ndour moom nga xamante ni moo indi woon leetar yi Serigne Touba joxe woon borom daru mo ci ndigal ni ko na sañ ci pàkk bii di Daarul Manaan nekk diggante Touba ak Mbakke te ñu sañ ko ci 1900 Abdoulaye Ndour moomee ba muy dellu moom la borom daru mo ci jox ay addiyaam ak kaamilub Cheikh Moustapha El Karim sëñ Moussa Ka nee na ba Abdoulaye di dellu min Conakry maam Thierno jox koy addiyaam ak a bari booleek mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yër ko muuñ ni Thierno xat oo fa sëriñ Saliou booba dafa wax ne bàyyi Thierno de bi sëriñ bi dem ci géej gi lépp lu mu yoroon moom la ko dénk ci loxoom la ko bàyyi mboolem njabootuk sëriñ Touba gi la sëñ bi def ci Thierno lépp moo ko def ñoom moo leen yar moo leen jàngal ba ñu yaru ba ñu xam mel nañ war a mel. te loolu sëñ bee ko defoon ci moom digal ko mu def ko ci ñoom te ña ci jiitu mooy sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Baara te booba jamono ji gën naa jafe ndax booba sëriñ bi dem na ci géej gi te xam ngeen ne ci circonstance yooyu ku xamul sëñ bi lool rek sa pas-pas dana wàññi ko ndax am nañ juróomi at yoo xam ne kenn xamut ci sëriñ bi dara kenn. maanaam pas-pas rek leen di wéy ci moom waaye amoo ci moom benn benn benn xam-xam te ñenn ñi wan nañ leen ne sëñ bi génn àdduna ba seen pas-pas tàmbali waaye foofu la gën a fonke doomi sëñ Tuubaa yi di leen jàngalal boppam fas yéene am jomi nag di liggéey ba du soxlaal kenn dara di am saqi fukk fukki saqi fukk di ko bay warul leen it la leen sëñ bi waxoon ci moom mu warlu ko mooy sëñ bi newoon na ko Cerno gone yii di ñett yi bum mu leen dal buñ saalañ bu ñu rafle bu ñu wax ca kaw kon yarum muro atu mooy loolu ndax boo boo saaleñee ab dof rek ngay nur boo yuruti yéele noonu booy wax ca kaw it suñ bokk ngay nural <laughs> kon li bëggoon mooy ñu yiw te dal te duñ xiif duñ mar duñ rafle te loolu Ceerno def na ko ci ñoom. njaboot nga bàl leen ci réew doon bal doon nga teg ci loxo. loxo yi leen teg faw nga wóolu nga wóolu ko kay jikkoom doy la sëñ Tuubaa jikkoom la def ci seen borom daaw jikkoy sëñ Tuubaa moom la def ci borom daaw loo tax mu wóolu ko ba bi muy dem mu jël njaboot gi teg ko ci loxoom sëñ Babacar nit ki bu la jikkoom doyut ab yaram doyuloo doo ko jox sa njaboot boo jëloon sa doom bu ndaw jox ko chinois mu yaral la ko saa bu màggee ne la bir ni amut ab Sénégal chinois nga am boo jëloon sa doom ju ndaw jox ko américain mu la ko boo màggee na la bir ne amatoo ab Sénégal ab américain nga am kon Sëriñ Tuubaa dafa yar maam Cerno Ibrahima def li ci moom ci moom ci maam Cerno Ibrahima juru njabootam teg ko ci loxol maam Cerno Ibrahima ngir li mu def ci moom mu def ko ci njabootam. loolee mas na ca net li lu mel ne li sëñ Xalil Mbàkke di wax ci téereem boobu góor yàlla gi wax ne sëñ Saalihu moo ko wax ne ko borom Daarul Muxti day at mi sëñ Tuubaa demee ci géej gi jaaxle fu mu fanaan ak njabootu sëñ Tuubaa gi sóob na ko ci mu àgg ci fanaan cim sàq moom njabootu suñ tubaab booba tubaab ku amul moom jafe-jafe ñëpp lay daw kenn du la mbokko suñ tubaab ci moom da wax ne wa minhum man in ra'a nasraani yaxsibuhu min malaayika rahman nit ñi dañoo ragaloon tubaab ku jàpp ku gis tubaab da nga jàpp ne malaayika nga gis coono yooyu yëpp nag mu nekk ci bi sëriñ ci géej gi bàyyi ko ak njaboot googu itam taxawaay bu mat sëkk moom la taxaw ci ñoom ba looloo waral keroog bi tawat tàbbee ñooñ borom daaru muuti làqu magam làqu rakkam ju jigéen tawat juróom-ñetti nit faatu waxul dara waaye bi waa kër Sëriñ Tuubaa yi tàmbalee jël ci wéradi gi cheikh Mouhamadou ya daal di jël ci dal di faatu sëñ Mouhamadou Moustapha jël ci sëñ Mouhamadou Lamine Baara jël ci sëñ Moussa nee na keroog la Ceerno masa jooy ci duniyaa maanaam keroog la ronqoo ñi borom Daaru Muxti masa génn ñu di ko gis ndax boroom Daaru Muxti dadul dadul kuy jooy ay joor ay jooyam damay wax ne lu yéemu la ci ci ci ci ñi ko xam mbooleem ñu koy ñi ñi koy ñi koy tagg ak ñi bind ci moom dañuy firndeel njàmbaar ak ñàkk dellu ginnaaw ak dara dara du tax mu ras bëtam loolu sëñ sëñ Paate Jeng wax dara du yóbbu aw fitam dara du tax mu ras bëtam wéetaay du wàññi ak ngëmam maam Ceerno jenn jëmm la sëñ Moussa gis nga dafa wax ne mësula rët mësula tiit du jaaxle maanaam kenn xamul ci ak jaaxle ñimee ñimee ñimee ba mel ne ak gar ak ak gar te waxewe xatt ba mel ne xet xettar ci beneen bayit sëñ Mouham sëñ moom seex sëñ Mahmoudan Koso gis nga bi mu koy tagg dafa wax ne mulimmaatu dëhrin laa tuzaxzihu azmahu walam yura yow man shaakiyan usra dëhri yi masalan lu jamono metti metti di nga mënta dindi lu toll ni tarfatal ay ni ci dogu borom Darou Mouhty dafa amoon dogu te dëgër moo tax la ko tax a jooy loolu lu rëy la cofeel gu rëy moo moo ko dal keroog ba mu jooyee ca ca ca ci wéradig waa kër Sëñ Bamba yi dajaa teg ñaan sunu borom tabaaraka wa taala ni yàlla maak saa doom yi ak saa ndey ji jote ñu doom yi Bamba yi réer maanaam ñaan sunu borom ne ko man sama jëmm nga jël ko jël jëmmi soxna fatise mi sama wayjur jël jën jëm mi sama njabot gi ma jota am te nga bayyi fi njabotu serigne touba gi bañ del si loolu foofu la ciofel ak bëgg fofu la fofu la yem sunu borom dogal na serigne bi bi mu demee ci geej gi ñetti at yu ñëk yi kenn xamul ci mom dara ba taxon nañu def ay pexé ngir bëggoon borom daaru muti tasaare njabotu serigne touba gi tax ñu bind ko ab lettre ni ko sëriñ bi nekkatul tasaareel njabot gi lettre bobé bako borom daaru muti jotee mu def ko aw tangor way soxna fatise isa laaj ko lu xew mu ni ko dañ maa wax di ma sëriñ bi nekkatul soxna fat isa diop moo ni sëriñ tuba moo ma ni woon moo may nungu ci bàmmeel te maa ngi ni di wax ak yow te sëriñ tuba lu mu wax alquran la kon waxuma la ni mi ngi ci kaw suuf waaye boo ko sàkkoo gis da nga ko gis digganteem ak ñoom njabootuk sëriñ tuba ci nekkuk sëriñ tuba noona la woon ginnaaw sëriñ tuba itam noona la woon te lépp loo xam ne li sëriñ bi santoon na ko ci bi mu ci tukki bi jëfandikoo ba mu mat ci ci biir njaboot gi bi nga xamee ni itam mujj na ko ginnaaw it ci liñ mën a gis booba itam eh, li mu war a taxawee lépp taxawee na ko ba mu mat sëkk. mu liggéey ci Sëñ Tuubaa liggéey boo xam ni manees na ni kenn fekk ko ca liggéey bi nag dafa yaatu ndax li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi li mu liggéey ci gannaaw sëriñ bi kuy seet sax man nga ni moo gën a rëy li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi ndax sëriñ bi bi mu fi jógee jamono ji lëndëm na lool jamono ji xat na lool. te ñëpp jaaxle nañ ndax sa sëriñ Tuubaa mi nga xam ni gisatuñ ko. ba nga xamante ne euh, sëriñ Modou saa ñëw na njaareem ña jóge jóge ña ñaaxeem dikk fekk xew-xew boobu am lam jëkk a def mooy wut oto boo xam ne da ko na nga dem Daaru Muxti ba nga ne sa borom Daaru Muxti sëñ bi ne nañ daje Tuubaa. ak ñeneen yoo yoon ci yoon wi sëñ daam Abdourahman ak sëñ Mandoum beeg sëñ nangam nangam nee na sëñ bi nee na ngeen dajee Tuubaa mi ngi dem sëñ bi noppalu na nekkatul te it mënut a ñàkk dem Tuubaa ba ñu ñëwee sëñ Maodo Moustapha bañ agsee nga xam ne agsi nañ dafa daal di génn ndànk rek bàyyi ak maam Thierno lépp waaye nag booba fekk na àdduna si xam ngeen ko ni mu demee day bari ay. ay ay yëf yëfaan ay ay ay njaxas ak ay dugg ak génn ka def yëf te nit wan ko boppam dafa yombo nit wan ko boppam dafa yombo waaye sa ci ci ci ci gàttal rek na nga xam ne la maam Thierno taxawa woon sëñ Mourou Moustapha taxawa woon ko ko ci ca baddilib sëriñ Touba ba ci dajale mbooloo mi ba ci taxawu liggéey bii nga xam ne moom leen sëriñ Touba ba tale woon taxawaay yem ca taxaw bu ko ci taxawul woon dara du mën a sotti ndax bari aana ñu daan dagg daaye aka defe ne leneen dana <coughs> dana mën a am lu weesu sëñ Modou Moussa di lépp waaye bañ ci seen maam na moom fam na sëñ Modou saa def ko muy lépp rek booba lañ xam ne loolu mun a ñàkk ñëpp soog a ñëw. mu taxaw nag te la ko suñ tubaa doon doyloo wétali ko yàlla dëgërloo suñ tubaa taxaw taxaw taxaw temm nag ci ci ci yoon wi taxaw. loolu danaa ci nettali xese boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad moom ko nettali woon ci ci te loolu ku xam danga xam ni loolu mooy fondation yoonu murit ndax sëriñ bi dafa wax ni bi nga xamee ni Seex Seexal Xadim wàcc na ñu dem ba war a leeral gannaaw dafa yónnee ndaw ni ci kër gu mag gi gi ci Daaru Xudóos ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ni na ma fa ni ñii may lim na naa leen fa fekk luy tudd rakk ña ca mag naa leen fa fekk luy tudd doom ñetta mag naa leen fa fekk luy tudd taalibe ñetta mag naa leen fa fekk ba Ceerno xëyee daaru gii di ñëw si di ñëw di di jëm si Touba ba ab baala àndaale ba buy dund ba mu dikkee mu jox ko Seex mu Mustafa bu mu agsee toog lijjanti mbirum sëriñ bi taxawal ko lépp ba mu leer nañ téere yi nga xam ne moom la fi sëriñ bi doon bàyyi te daan ko jëfandikool boppam mu ni nañ ko xubus le bàyyi ko fi mu nekkal fi yoon wi yëpp ñu fab ko def ko ca magasin bu bu ci daaru Xudóos yeddu jaañ mu teg ko fa ngir mu waroon a saytu téere yooyee ba loolee amee nag mu ne nag damaa bëgg nu waxtaan tey daadi tudd kilifa ga nga xam ni moo sës ci moom muy Cheikh Anta mu daal ne ko euh, nan nan jàpp sëriñ bi te te doyloo ko sëñ ma numbe sës ca mu ne ko ma numbe mu ne ko mbakke mu ne ko demal liggéey boo liggéeyee ba liggéey bi sont nga indi ko fi nga ko daa indi boo dikkee koo fi fekk nga jox ko kooku kon ñan ñan ñoo ciy des taalibe yi Cheikh Ibra ci mag ma nga fa toog mu ni ko Cheikh Ibra yow it wanee yoon ko daan gis ba gisatul kookaa mat a gën a wonu yoon lëndëm gi fi sëriñ bi bay moo gën a metti lëndëm gu jëkk ga gannaaw sëriñ bi ba ko nit ñi xamagul yaa ko wane ba nit ñi xam ko wonal nit ñi fi ñuy jaar daal di joxoñ ci mbir mu saw mu dégg ko ñaari loxo loolu mooy fondation yoon mu kon xam nga sëñ Fallou topp ak sëñ sëñ Fallou ak sëñ Basiru topp ci mu ne acca Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës euh, sëñ Mourou Moustapha doom yi mu jëkk sëñ Mourou Moustapha mu ne ko yow it Mamadou Moustapha yaa ci sës du yow a jëkk am baay bu baax ñàkk ko toogal fiite na ci li sa baay boo nekkee ci sa baay newoon boo melunu sa baay nit ñi dañ la teg fañ tegoon sa fi dëkk nag jërte xëccoo doy nit ñi moo jër a xëccoo boo doyee nit ñi foo nañu fekk la fa loolu mooy dénkaanab Cheikh Moustapha daal di cay teg ni Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës topp leen seen mag ndax noonu askanu suñ mbàkke morkat xajunu ci benn néeg waxuma la benn dëkk te loolu am noo ko amee ci topp suñ mag bu seen mag meloon nu suñ mag seen mag gën suñ mag bàyyi lii la maam Cerno dénkaane woon keroog ci taxawal yoonu murit sëñ Moodu Moustapha léegi laay nattali sëñ bay xasida gu woo xam ni ku ko gën a rafet gën koo neex amut mu wax ko ci borom Daaru Muxti wax ca wax yu yéemoon ak sax nag sëñ Fallu moom bayit yi yi wax ci moom xam nga siiw na ataytu ilal mi'ta'i fi daarihi al-mu'ti li yushkiya shakwa al-qabdi minni bil basti sëñ baara gis nga def na ci moom xasida gu yéemu gu rafet gu am solo wax ca waxit yu yéemu te rëy noonu la njaboot gépp sama sëñ Tuubaa gépp jàppoon ak moom mu lépp doonoon benn ñu àndoon ñoom ñu jox ko cër bi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa jox moom it mu leen xoole njabootu ay eh, man ab serignam sëñ Mourou Moussa yalla dogal na nak la maam do doonoon ci mom lepp da ko nangu won jox ko ko doxal sëñ mahmoud nettali na ma yàlla yalla dool leeram nee na ma bi nga xamé né dañu tok ab dir bo xamné waxu ñu dara ci liggéeyu juma ji sëñ Mourou Moussa fa ñew daru ne mam Thierno dama ñëwoon di la siyaare si ak di bëgg laa laaj ba xam liggéey bi sëñ tuba batale woon da nga caa xam lu tax e, waris ya daal di taxaw léegi dañu nekk nangam wala da wala sëñ bi da ko bàyyeelu ma bëggoon waxtaan ak yow mu ne ko ah, déedéet déedéet dara mu ci liggéey bi kay nam ko digle woon na la man la ma ci jàppoon moom laa ci jàpp dafa tolloog nag nit ñeeg seeni wax dama bëggoon ñu bàyyi ba wax ba ba teeral rek ba xam ne mënuñu ci wax mënuñu ci yàq dara ma soog a wax la may wax waaye boo demee nekk ca sëñ Fallilou moom waxaalee su ko moom sëñ Fallilou moom da da doon peeteem ba nga xam ne nag euh, sëriñ bi. jéeyaale ji na ak boromam niñ koy waxe moo di ne euh, wan nañu ginnaaw sëriñ bi di borom Darou Mouhty dellu si nag ci barab bi mu ko sàkkaloon muy Darou Mouhty gile waxat wax nag ne duutuma ne kenn asalaamaaleykum waaleykum salaam rek laa deeti wax loolu mooy xam ne. E, sëriñ Touba mi nga xam ne moo yelloo woon loolu ci moom gisatu ko kon nag kenn ku mën a doon ku nekk ak noo mën a tollu mu ngi toog di la déglu soo ñëwee lu mu war a wax ak yow lu mu war a def ak yow dina ko def ak yow keneen ku mën a doon ku nekkit boo ñëwee lépp loo xam ne doo soxla woo ci moom la lam ca war a def dana ko ca def noonu la fi nekkee ba mu neex sunu borom. dañu toll jamono joo xam ne li ma waxoon sax ne modèle la royukaay la dafay gën a fës ci jamono ji ñu toll. bu ñu demee ba jamono dem ba kilifteef di waaj a bu ñu ba jamono joo xam ne euh, respecté kilifa day waaj jeex bu ñu demee ba jamono joo xam ne nit ki ndigal moo koy tànn boppam loo ko digal bu ko neexee tànn la ko neexee def ko la ko neex mu bàyyi ko boobaa nag fàttali ko maam Cerno day day sëkk boobaa fàttali ko maam Cerno dafay jot sëkk sëkk sëkk am na lu bees lu xew loo xam ne euh, ñun ñëpp seet nañ ko ci yëf yi yoon wi nu muy doxee ñi bari mbooloo nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigul kenn ñi bari xam-xam nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigul kenn ñi bari alal nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigul may wax ne maam Cerno Ibrahim yi mu wax yëpp daje woon na ci moom borom mbooloo la woon borom xam-xam la woon borom alal la woon ay jamonoom képp koon alal ay jamonoom képp koon xam-xam ay jamonoom képp ko mbooloo waaye mbooloo moom ak xam-xamam boobu ak alalam jógu teew woon ko dox digganteem ak déglu ndigal te woon doxutoon digganteem ak nangoo déglu euh, nangu kilifa Sëriñ Tuubaa kon sëñ Babacar gën na sëkk maam Cerno Ibrahima roykaay la boo xam ne képp ko ne bëgg ngaa aw fi Sëriñ Tuubaa bindee fi fi nga nga roy ko ci dox doxinam boobee diggante Sëriñ Tuubaa ak gàttal mooy kii suñ ko suñu borom ñu yoon li ko liggéeyloo jël jëwriñ te ko jotam ne ko kii moo moo jàppale liggéey bi bu liggéey mën a àgg fi nga bëgg liggéey bi àgg buñ fi doon wax fi ba suba ci cerno yi du jeex waaye daal mooy ñi sëñ bi dib généralam di rakam dib talibem bu ko gëm boo xam ne yemul sëñ beeg dara sëñ bi jëfandiku ci moom loo xam ne ay teggin mayuut nga ne jëfandikoo ci kenn waaye bëriwul ñu ko jëfandiku kooku mooy Cheikh Ibrahima yàlla na yàlla tas barkeem. Amada, ಗಂಗಾಯ